mbokku téléspectateurs yi gannaaw bi ngeen gisee li nga xamante ne moom moo fi am gis ngeen ni ki nga xamante ne moom mooy euh, euh, Boursine kii nga xamante ne moom mooy Eumeu Sène Junior daan na ko combat bu metti xeex bëree xeex bëree ba yàlla def ki nga xamante ne moom mooy Eumeu Sène Junior daan coach maa ngi siyaar euh, maa ngi leen di dolli siyaar ñu wax tuuti ci làmb rek wax tuuti ci incident bi fi am waaw parce que du duñu wax ci làmb bàyyi incident bi fi nekk ci diggante Alioune Sèye Junior ak ñàkk jariñu newoon naa la sur dix combats Alioune Seye junior mun naa daan ñàkk jariñ ñu jariñu wërsëgu tan la am bi mu xamee ne combat bi baaxul faaw mu xajamal combat bi yàlla rek a tax ñuy wax euh, bi am nag nañ yemale lépp ci cadre làmb chaque jour nga nekk nit naan CNG moo limité lii CNG moo war a def lii CNG moo war a def lee CNG lii wane tey ak gan yi fi nekk tey nekk ay européen ay allemand ñëw fi depuis ce matin CNG war na ci jël ay mesures combat spécial yi ak combat bu mag ba ci combat bu ndaw bi mbër mu ne léegi benn accompagnant ngay àndal ak ku mënti doon hmm. que ce soit muy Balla Gaye que ce soit muy Modou loo ainsi suite te fa nga dugg ci biir enceinte bi fa la CNG war a jël ay mesures ba nga yem fi parce que tey lii yàqu tey leçon lay doon ci ñoom ñaaw na non c'est désolant c'est parce que am na ci loo xam ne bu ko CNG jëlee ay mesures kat yi jógee fële naan CNG li muy def di yoon lamb daa war a xajam lamb daa war a def nangam mais course ñax taxaw na fi mu taxaw di xaar adversaire am ñëw ñu présenté leen mais ñi ànd ak ñax ñoo xëpp li nga xamante ne moom mooy gàllaaj pour la deuxième fois ki nga xam ne mooy alice Seye parce que gis nañu première fois bi këpp nañ ko gàllaaj Cheikh Omar deuxième bi ñu këppaat ko gàllaaj Cheikh ban daree waxtaan ci lamb ba léegi waaw nga xam ma may wax ci lamb waaw nee naa la à chaque fois mbër mi bëre du yàq làmb accompagnateur yi làkk làmb te yàgg naa la ko wax hmm. tey wane na ko bu suba accompagnateur yi danañ wan waat leneen lu may lii mais accompagnateur yi lu ñu yàq ñoom déjà ñoom seen bopp sax la ñu yàq seen mbër sax la ñu yàqal tey seen reliquat pour seen mbër jot ko c'est son problème leçon la daal pour CNG de lutte bi parce que CNG bu jëlee ay mesures ñu ne loo lamb daa war a xajam waxkat yi wax takk kat rajo yi takk seen rajo mais dama la bisub Alioune Seye junior bii ak ñaq jariñu jox na leçon waa CNG ba nga xam ne bu lëgatee mbër muy dugg ak maqaama joo mën a yor benn accompagnant bi lay sologal doy na ci yow incha allah alors ñu jóge foofu euh, gars yi sauvé lamb quand mhm. ñëw nañu ci grand combat bi mhm. hmm, ki nga xamante ne moom mooy euh, euh, Eumeu Sène junior mhm. daal di daan ki nga xamante mooy Bour Sine combat bu metti xeex bëree xeex bëree nee naa la toog naa ci programme bu bis Eumeu Sène junior di laaj sama poulain kon am na sañsañ am na lu mu bëgg am na fu mu teg vision buur si nee naa la ci Mama Lamine la jóge der la du dellu gannaaw hmm. mën naa xeex bëgg na li muy def ñeme na ko Eumeu Sène junior la buur si ma a tey la Eumeu seen indi ne ko loo kupp ma baatar ko jël na ko ñaari yoon Eumeu seen junior diis ci kaw mu wàccee ko indi xeex Eumeu indil ko safara mu delluwaat gannaaw booy bi eh, Boursine épuisé boppam. waaw parce que ponkal booy bëreeg moom déplacé ko gauche ak droite énervé ko mu ñëw ërtal ko ko mu ñëw sa kaw nga sulli ko daan ko ndax ponkal mu jóg oyof. mu jóg oyof mu jóg maa la ko wax. alors merci beaucoup euh, coach. joxaat dig daje rek. waaw dig jaale aussi ñoxor. waaw parce que doyen la ci arbitre yi. Hmm. ñu bokk làmb ji. Hmm. bu fi jugee tey yoon may na ma man sama jëmi bopp teew ñaata bis ba. gunge naa ko ba foofu war a jëm ñoo ngi koy jaare waa axlu làmb yëpp ñoom Malick ñi fi nekkul ñoom Sitor di nuyu ñëpp di nuyu axlu làmb ñëpp di leen gërëm di leen sant te xam ne jàmm rek moo am Sénégal mm-hmm. jàmm lay ñaan Sénégal yàlla na fi jàmmam jërëjëf jërëjëf kookoy coach Mame Less comme ni ngeen ko gisee wax na dëgg combat bi euh, li koy yàq wala li ci li fi li nga xamante ne moo ñuul ci soow mi moom mooy incident bi fi am ci diggante ñàkk jëriñu ak Alioune Seye 2 mu nekk combat boo xamante ne ñu ngi ko doon xaar Alioune Seye waajal ñëw ak ay mbokkam nga xamante ne moom mooy ñàkk it pareillement ñëw ak ay mbokkam mu nekk combat boo xamante ne combat bu am solo la ñu ko doon xaar nag parce que lu mënoon a relancer euh, carrière la euh, si ñaari mbër yi rawatina nag Alioune sey numéro 2 alors gis nañ ni xeex nañu jam nañ ko xëpp euh, nañ ko gàllaaj loolu la ñu gis à deux reprises donc nag CNG dana si ñëwaat daal en tout cas lu ñu mën a wax mooy honorewul làmb rafetul rafetul aussi ci Xaadim Samb mi nga xamante ne def na lépp ca làmb suñu papa jooju rafetul waruñ ko woon fayee lii mais ñu ñëw ci grand combat bi gis nañu grand combat bi nag ki nga xamante ne moom mooy Boursine jël na nag dafa tàmm jël ñu diis Boursine wax naa ko à deux reprises ci Mama Lamine la jógee Mama Lamine diis gann te sañ-sañ lay bëree moom Bour mu daanu ci Mama Lamine mu ñëwaat jël ki nga xamante ne moom mooy Eumeu seen junior diis gànnam dafay baax nag parfois nag nga xool plan de carrière booy indi nag parce que c'est vrai sañ-sañ baax na mën xeex baax na waaye aussi am tuuti plan de carrière dafay baax Bour Sine mu jël nag koo xamante ne dafa diis nga xamante ne moom it dafa soxla woon ndam soxla woon dellu siwaat ci làmb muy Eumeu seen junior ñu koy félicité combat bi yombul encaissé na ay coups ndax kuy bëreeg Bour Sine nga ñam encaissé na ay coups xeex na bëri na cardio bi dem na ba benn moment parce que lourd la mais mu gën a yokk cere dolli ñeex mu gën a entraîner moom Alioune euh, moom moom moom Eumeu Sène Junior te xam ne moom combat yi muy jël dara du ci sedd ñu koy féliciter di ko encourager di féliciter waa làmb yëpp mais di wax sama mbokk yi sama mbokk journaliste si làmb nag baaxoo na lii yàgg na am ay incident mais nañ ko gën a rafetal rek lépp loo xamante ne dañ ko ciy wone it nañu wone aussi li nga xamante ne mën na gën a ñoŋal làmb ça sert rien nga wone loo xamante ne aussi day gën a delloo làmb ginnaaw Cheikh la woon ànd ak ki nga xamante ne moom mooy El le meilleur fii